salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku si nekk sa tur ak di leen ziar ci nuyoo yi gën a kawe waaw man maa tudd Yamar Décolle Ndiaye maa ngi dëkkee côté ci Baobab maa ngi yëngatu ci affaire aar bi ci affaire décoration peinture a domaine stucco marbre ak ci domaine bu nekk may am samay boo yoo xamante ni maanaam moom ñooy liggéey quoi. waaw tey nag moom dama ñëw seet si waa Allo Dakar pour jàllale sama pub bi xam ne gars ñëpp jàpp si. képp ku que sa décoration chambre salon studio art du domaine bu nekk ak ay pose pose faux plafond yooyu noonu yëpp amna élément, ay éléments yëpp man damay def décoration mural dessin yëpp waaw waaw liggéey boobu mom dafa am lu mu laaj quoi parce que lu mu laaj mom dafa laaj ay processus yu bari quoi dafa laaj jang jang quoi dafa laaj ay formation à suivre quoi de un na am ay notion ci yenn base yi quoi ci mën dessiner ci mën foog na nekk benn koo xamante ni dana am esprit de créativité quoi. waaw am na ay aspects yu bëri am na aspects yu bëri d'une part mën na nekk mën na nekk mën na doon ci divinité mën na doon benn affaire boo xam divinité mën na doon luy luy ñëw loo xamante ni loolu suñu borom moo koy dugal si yow. am na loo xamante ni tamit da nga koy jàng parce que xam-xam ñaar la quoi xam-xam moom da nga koy jàng wala na doon ko quoi. léegi boo en plus soo boolee ñaar yi mooy gën a doon benn éclat quoi boo xamante ni dana daf la doon ba pare jàngu ko quoi boobu moom beneen affaire looy doon quoi te en plus tamit nit moom looy def moom da koy bëgg quoi sooy def ci affaire métier art bi moom danay xool ci mot àdduna bi yëpp xam na ci ñuy yëngu ci affaire art yi lan moo lan moo bees ci art bi quoi au niveau au niveau international ñu jéem a appuyer foofu xëcc ko fii Sénégal exploité ko quoi waaw mun naa ne ñaar yëpp la quoi parce que man wax dëgg fa yàlla moom aar moom mosul génn sama loxo quoi parce que voyagé naa dëkk yu bëri en plus tamit mais bu ma defee ba Afrique du Sud tamit foofu tamit bu ma nekkee foofu nekkoon naa ci benn marché art bu ñuy ne Damdoren Cameroun village mooy nekkee côté Brett foofu tamit amoon na foofu benn place art bu mag waaw foofu gars yëpp xam ne ma foofu quoi parce que foofu maa doon def affaire ay drams ay masque facial yooyu noonu ak ay batik ak yenn yooyu quoi. waaw wax dëgg fa yàlla domaine boobu moom état da si war a jàpp. parce que tey jii soo amee jeunes yoo xam ne ñu mel comme ñun bëri ci dëkk bi man am naa sama yeneen boo yoo xamante ni ñuy Grand Dakar ñuy ñuy Médina ñuy ñuy yeneen secteur yoo xamante ne am naa ñeneen ñoo xamante ni dañuy ñaw couture art comme ay jazz jazz muy nekk côté Wakam yooyu. yooyu noonu yëpp ñooñu ñëpp su ma leen boolee laa wax nii affaire bu grave lay parce que ci domaine art lépp lépp lépp ci domaine que tey jii état suñu doon jàppale jàppale ñu ba ñu am benn maison maison maison d'art boo xamante ni ñu ci mën a xam am ay atelier jënd si yenn matériel yu bëri matériel yu dernière génération yu bees yu xew ci af ci domaine art bi yooyu suñ ko amoon moom ah, ak transport yi yëpp des fois dañuy xam ne doo am moyen de locomotive yoo xam bu lay dem yóbbu di indi te des fois dañ lay woo marché si àll yi yooyu noonu nee la kaay décorer ñu benn salon boo xam te ne ñun ñooy nekk ay côté Saint-Louis wala wala Fatick yooyu pour déplacement bi yëpp day métti quoi waaw. waaw lépp lépp moom ça dépend parce que lépp si waxtaan la quoi. mooy début du travail lépp balaa ñoo engagé benn liggéey dañuy toog kii bi moom ñu defal euh, nu mu tee sax benn euh, benn genre reçu daal boo xamante ni matériaux war jënd yëpp ñu bi defal la benn débit si la defaree débit xool kër gi ñoo xool lépp defal la débit na wax ñu yow ñaata kii na bëgg ñaata fan na bëgg mu pare ñun ñu indi suñu ay booy ku booy bu nekk suñu la wooyee nee la parti bi defal ñu ko lii parti bi defal ñu ko lii ñu song kër gi mu jeex. waaw liggéey bi xam ne tamit buñ ko kiwee moom ñu ngi ci deux ans deux ans muy nii toll nañ ci deux ans quoi waaye ñu wax jàppale tamit ñun lépp lu ñu liggéey lépp lu ñu fay dañ koy dugalaat ci matériel. waaw te en loolu tamit day xaw a kii quoi mais su tey suñu amoon matériel yu ñuy am yëpp nii tey waxatuñ ko quoi. waaw même ci wàllum peinture oto bi tamit boobu tamit daf ñu dese ay matériel quoi léegi matériel parce que tey jii ni lu lu ñu liggéey moom nañu dugalaat jënd ay matériel di dajale nank na même ci wàllum oto bi instant yi dese nañu ay compresseur compresseur yoo xam ne moom nañuy boole ak pompe mooy pompe oto yi léegi yooyu tamit dañuy bëgg def ay décoration oto yoo xamante ni dañuy def ay dessin ci oto yi waa pour nga xam ne ay logo ak yi comme yeneen dëkk yi ñu koy defee quoi. waaw ñun dañuy peinture mun nañu dañuy dañuy mun nañu jàpp benn mur peinture ko à décoration couleur à eau mun nañu de décoration à huile mur décoration enduit décoration enduit enduit décoration décoration am décoration am tamit décoration marbre marbre tamit marbre décoration yu yu décoration dessin mural comme ñu jël benn mur di ko dessiner ko comme tey nit su bëggee benn porté benn sëriñ wala dara wala benn cheikh daal ñu def ko dessiner ko quoi. waaw ñun moom suñu contact dañuy am nañ maa maa ñuy nekk si Kaab Baobab ci ginnaaw mairie Barthélémy Dias bi foofu noonu ñuy nekk tamit Médina Mariste yooyu noonu yëpp waaw. ku ñu bëgg jo ku ñu bëgg jokk jot moom mën nañu mën na ma jot moom ci 78 227 39 98. wala 77 142 16 81. waaw sama client yu ma jot a liggéeyal moom wax dëgg fa yàlla ñoom moom damay woo sax nee ma kaay ma boole la sama beneen sama beneen xarit bii nii na defaral ko li lii te en plus fu muy nekk moom damay woo di ma nemmeeku xam ne mooy loolu quoi. te ñu mësul ma sama loxo moom maa leen di woo nem ma nem ma nem ma jokkoo quoi su ma kiiwee moom dinaa leen defaral lu rafet moom incha allah moom su neexee yàlla moom. waaw defar lu rafet waaw tamit ma eh, aussi ñun tamit dañuy def kii tamit mooy aquarium quoi képp koo xam te ni bëgg na aquarium tamit sa sa salon wala sa néeg wala kii tamit aquarium dimension boo mënti toll moom dañ koy def quoi aquarium salon boo xamante ni dañ lay defal ci biir aquarium bi décoration quoi boo xam dañ koy taf ci verre bi quoi. waaw waaw alors Dakar moom aw ma seen fay quoi parce que ma leen di ñaanal moom affaire bi moom jëm ci kanam ci kaw kaw moom te en plus moom ñun moom ci kër gi nañu bokk daal.